maa ngi lay fay maître lan nga ñu mën a wax ci xibaar bi ñu dégg ne am na ñenn ñu àndoon ak Ousmane sonk ñu am ñoo xam ci garde à vue lañu nekkoon ñu levé ko waaye Ousmane Sonko dafay wéy di des euh, ci loxo takk der yi ndax dafa am mandat d'amener bu ñu ko war a yóbbu ci juge bi euh, lan nga ñu mën a wax ci xibaar boobu. waaw mooy li li nga wax rek je crois que nga ko waxee loolu la bon ñi nga xamante ne dañ leen téye woon ak moom mooy garde du yi ñoom dañuy dem. parce que garde à bi dañ ko levé mooy dossier trouble à l'ordre public bi ak participation à une manifestation interdite donc comme levé nañ ko ñoom dañuy dem mais xam nga Sonko li ko fa bàyyi mooy mandat d'amener bu juge d'instruction bi def mandat d'amener bu ñu la ko defee mooy képp ki nga xamante ni agent de la force publique la fu mu la fekk da lay téye présenté la au juge d'instruction donc loolu moo tax dañ ko présenté vendredi juge d'instruction bi renvoyé la ñuy wax rek retour parquet la rek fi mu nekk ni mën nañ ne retour de parquet la nekk mhm. mu delluwaat au niveau de la gendarmerie bi xaar pour ñu représenter waat ko léegi au juge d'instruction demain matin mhm. donc il est toujours en dans une forme de détention parce que gislakol ba demee juge d'instruction bi wax ndax daf koy bàyyi wala da koy téye d'accord mais maitre man li ma bëggoon xam mooy xam naa loolu di ñu si mën a gindi euh, naka ngay mën a nekkee garde à vue di jël mandat d'amener maanaam loolu naka la mën a demee waa procureur de la moo jaxase jaxase yëf yi rek parce que dossier la boo xam ne nit dafa demoon. moom moom bu ko bu ko demandé woon duñ ko ko yóbbul Ousmane Sonko comme mi ngi ci seen ay loxo wala Sonko Ousmane dafa am loo xam ne nanguwu ci euh, nanguwul nanguwul comparaître wala lan moo am parce que am na mandat bu ñu doon wax comparution ak yooyu. waaw xam nga fi mu nekkoon. Mhm. nekkoon garde à vue ci lañ def mandat dama la yóbbu mandat mandat de comparution. Mhm. mandat de comparution mooy dafay sa bopp. Mhm. mu ne leen man mënu leen mënuma ñëwal sama bopp parce que dama nekk en garde à vue ñu toftal ci mandat d'amener mandat d'amener nekkatul da ngay ñëw sa bopp mais dañ lay jël si par force. Mhm. donc ñaari procédure la nekk yoo xam dafa jaxasoo àndul. Mhm. te lépp euh, jaxasoo bi yëpp fu mu jógee mooy problème jàpp bi ko jàpp bi mooy dem di wóoy ji. Euh, juge d'instruction bi. kon d' accord kon demee incha allah moom ak euh, le juge Samba Samba Sall moom moo moom moo décerné mandat d'amener bi kon ci moom lay lay dem. ci moom lay dem te Ousmane Sonko ko mhm. il faut que mu dem ci juge d'instruction bi demee. d' accord juge d'instruction d' accord d' accord c' est demain à 11 kon mën nañu xaar par exemple mu am seen assistance mu bañ mel comme ni nga xam ne noonu la noonu la demee woon la fois passée. waaw dina am parce que juge bi amul choix parce que dossier boobu viol la ak menace de mort mhm. donc crime la mhm. crime bu amee avocat bu bu taxawul du kenn du ci def dara juge bi du ci ah, mën dara loolu moo tax il est obligé de nous admettre demain loolu kenn waxatu yéen yéenay ay avocat am yéenay ay conseil am parce que aussi avocat mooy conseil ndax mën nañu njort ci yéen ngeen conseiller aussi euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ni ñu ko déggee ñëpp di ko wax apaisement dal mën a am ci réew mi ndax mën nañu xalaat ngeen conseiller ko loo xam ni mën na jóge ci moom ñëw ci yéen jëm ci askan wi ci lu indi dal ci biir réew mi. waaw loolu dinañ ci après dinañ ko apprécier après suñu biir parce que am na loo xam ne aussi mënu ma dañu nekk ci contexte boo xam ne dafa xaw Mm-hmm. te dañuy liggéey en poule. parce que mm-hmm. du man kese ne ñun dix avocats mm-hmm. donc loolu boo ko gisee boo gisee ñu bañ ci wax lu bari parce que lépp lu ñuy wax rek dañ bëgg di ko coordonner. d'accord parce que dañuy bañ wax loo xamante ne day yàq. ok moo tax dañuy préféré bàyyi ba ci waxtaan. d'accord maître man laaj bu mujj rek xam naa ma libéré la mooy euh, euh, garde à vue bi levé nañ ko mais est-ce que mën nañu xam ndax toppeetuñu leen dara mooy ñi nga xam ni bàyyi nañu leen. déedéet déedéet. toppeetuñu leen dara. déedéet du benn du benn. ah du benn. bu ñu levee garde à vue. waaw. annu annulé wul procédure bi. ah d' maanaam levé nañ ko rek mais lox yoon ba tey mu ngi seen seen kaw à tout yoon mën na ko reprendre levé garde à vue mooy. Hmm. délai bi nga xamante ni nañ ko jeex na. Hmm. donc ah, garde du comme comme procureur mënoon na demander ñu yokkaat garde à vue bi. wala dafa dafa passé quatre vingt seize heures. déedéet passé 96 heures. D'accord, voilà, donc c'est bon. Merci beaucoup. Euh, jërëjëf maître Bamba Cissé ñu lay gërëm bu baax ci ànd bi nga